à CTV, la chaîne des patriotes. jërë ngeen jëf mbokk internet yi nga xam ne saay su nekk yéen a ngi saxoo di seetaan di teewlu seen chaîne bi di ASID TV la chaine des patriotes ñu ngi ci ligne bi ak benn patriote bi ñuy wax euh, la Tigresse Gueye Tigresse ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci ASID TV. maa leen di fay di leen jaajëfal ci invitation bi. waaw yow gis nañ ne coowu passeport Ousmane Sonko bokk nga si ñi ko njëkk nekk di coow si réseaux sociaux yi ba tey démb gis nga euh, ñi nga xamante ne muy jigéen yi nga xam ne euh, daanaka dañoo nekk si biir Pastef ñii doon ay activiste ñu daal di jóg ñoom tamit ne dañuy xeex li nga xamante ne muy Ousmane Sonko ñu fas yéene ko jox passeport am yow lii yow loolu yow mi nga xamante ne muy Tigresse ban jàngat nga si am. mais loolu dafa neex nga lancer benn affaire. du dëgg nga lancé benn affaire nga gis ni say sœur patriote ñu nekk jigéen ni yow. Mhm. ñu jóg taxaw pour gën dooleel xeex googu noonu te ñoom sax xeex boobu ñoom la yelloo ndax ñoom ñoo nekk Sénégal ñun nekkuñu Sénégal ñun ñoo ngi fi diaspora ñun ci réseaux sociaux yi la ñu mën a xeex ci la ñu mën a wax mais ñu mais ñoom ñu nekk ci terrain bi tey ñoom ñooy gaynde yi nga xamante ne war nañu mën a jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu noonu Sénégal. donc man loolu awma lu dul kontaan ci am ci mbégte mbégte bu rëy la ma jox ndax tey mun ñëpp mënoon nañu ne tekk noppi mais xoolal ñëpp a jógoon donc loolu sant yàlla rek la. waaye Tigresse ndax xeex bi dina yomb Ousmane Sonko mu jot passeport am. bien sûr que dina yomb dina yomb du yomb ñun ci ñun dañuy jàpp ne lu yomb lay doon parce que xam nga lu tax. parce que ki nga xamante ne dangaa am sa dëgg gëw ne nga war a ragal dara ngay tiit li ngay def ndax dina yomb wala du yomb comprendre nga bu baax li ma la wax ñun fu ñu nekk nii lu yomb lañ koy téye même bu naree nekk li nga xamante ne sax day métti dañuy xuus ndax Ousmane Sonko jaral nañu ko Ousmane Sonko jaral nañu suñuy bakkan Sénégal jaral nañu suñu bakkan te boo xoolee lu tax du jël passeport am du du du loo xamante ne dañ ko teg ci yoon. comprendre nga bu fekkoon ne li nga xamante ne dëgg la dañ ko teg ci yoon ñun am ñu ci benn problème duñ ci doon wax sax. Mm-hmm. mais niñ ko jëlee la ak fi ñu ko bëgg a jaarale la. Mm-hmm. xam nga ñoom tey ñu jël passeport boobu naan di laajte justice. pour keneen ki nga xamante ne ñëpp xam nañu ne lu muy wax du dëgg te ko ngemb du ñu aw ay waxkati dëgg te ñun ñu xamante ne tey ñun ñoo yor dëgg te lu ñuy défendre dëgg la ah dañuy jàpp ne lu yomb war a nekk léegi nag buñ ko bëggee yombal ñoom dina yomb buñ ko bëggee dëgëral nag mettil ko ci ñoom lay métti rek. ci mhm. Grace Gueye yéen ñi nga xamante ne da ngeen nekk ci diaspora bi ngeen ci doon kaas su bëgg ngoon ci seen live ci seen Facebook di wax ne euh, Macky Sall na jox passeport am ki nga xam ne Ousmane Sonko tey yéen ñi nga xamante ne ñi nekk senegal feelu si nañ leen ci liggéey boobu noonu naka ngeen fas yéene ànd ak ñoom ci xeex bi. Euh, comme ni ma la ko waxee rek ñun ànd ak suñuy sœur liggéey xeex xeexandoor xeex bi ndax xeex bi comme ni ma koy waxee. bu ñu booloo ñun ñëpp nekk benn ci lay gën neex ci lañuy ñuy gën a am doole ci la ñuy gën a atteindre suñuy objectif donc man dama gis ni lii lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu jara saluer la maanaam suñu sœurs yi ñoom lu ñu jógee tekk ñu tey ci combat bi loolu dañ leen ci war a sant gërëm leen ci parce que mënoon nañ koo bañ a def mais ñoom tam tamit gis nañu ni intéret Sénégal la ñuy jiital Mhm. parce que tey Ousmane Sonko bu jëlee dëkk bi. Mhm. suñu intérêt la ñun ñëpp muy ñun ñu nekk Sénégal muy muy ñoom ñu nekk Sénégal muy ñun ñu nekk bitim réew. Mhm. te boo xoolee sax dem seen intérêt lay la la la gën a ne. donc bu ñu jógee tey ñoom ñu ne dañuy porter combat bi amuñu dara lu dul ñu leen di saluer daal li leen wax na ne moom gàcce ngaalama. Ousmane Sonko moo nekk maire Ziguinchor ndax waa soor tamit ña fa nekk jigéen yi fa yéene nañ si am benn taxawaay yow mi nga xamante ne tey Ziguinchor nga dëkk. mais bien sûr. Mhm. <laughs> ndaxte ndaxte Sonko tamit lu mu doon maire de Ziguinchor dina soxla euh, papier pour ma passeport pour mun a génn Sénégal am ay partenaires yu mu mën a lijjanti pour maire Ziguinchor voilà. bien sûr. Mhm. mais boo gisee tey benn Tigres gay lancé loolu. ak ñeneen ak ñeneen topp si mooy dañoo bëgg Ousmane Sonko ñëw bitim réew nemmeeku ñu ndax tey euh, local yi mun naa wax ni concerné wu ñu. mais nag yu ñuy dem ni législative yi def ñoo concerné te ñun dañoo bëgg gis suñu leader toog ak suñu leader wecceen toog moom ay xalaat xam nga lu ma la wax. Mm-hmm. Euh, waxtaan ak moom. Mm-hmm. te ñun lu ñu gën a métti sax mooy passeport bu ñu jël tee ko pour lan. pour lan ñu jël passeport jàmbur téye ko fuñ ko teg. te yéen Ousmane te yéen te yéen doguma la sax mais dafa mel ni yéen da bëgg ñu jox Ousmane Sonko passeport am waaye Adji Sarr mi ngi ñaan euh, waa njiitum réew mi ngir mu génn Sénégal. xam nga Adji Sarr man nee naa la affaire duma ci sori duma ci sori de. man Adji Sarr affaire am duma ci sori moom bu bëggee génn réew mi moom moo xam na jël ay bagage am génn réew mi mu abal ñu loolu lijjantiwuñu ko ñun xam nga kan la ñuy lijjanti mooy suñu li suñu leader kenn du ko laal kenn du ko jege ci ay fen lu ñu soxla mooy nañ ko delloo passeport am mu dem lijjanti ay soxlam dégg ndax lu xew Sénégal maanaam nit am problème ngay toog ay dix ans sa problème du réglé wu wala ñu tëj la dix ans soo paree ñu ne ah ñun de dañu juumoon léeg-léeg non kii du Khalifa Sall kii du Karim Wade déggoo ma de. Mhm. kii suñu bakkan lañ ci teg ñun jigéen yi ñooy jiitu combat bi ñun ñoo koy porté waaw keñ. Mhm. léegi yéen waa Ziguinchor yow léegi foofu nag nag ngeen nar a doxalee leeral ñu ko mu gën a leer. ah waa Ziguinchor yi xaw ma ba xam ndax dinaa ci mën a wax mais xam naa ni moo ngi ci kawam parce que ñoom lu ñu bëgg a def foog naa ni surprise la donc mun nu ma cee wax léegi pour le moment donc foog ma wax ak euh, nu ma tudd ki nga xamante ne mooy responsable des jeunes. parce que la laajtewu ma ko autorisation ba tey dama ko naroon woo ci ngoon si mais waxaguma ak moom mhm. donc foog ma waxtaan ceeg moom mais ñoom jéego affaire passeport bi ñoo ngi ci mhm. depuis man ma lancé ko semaine bee passé ñoom ñoo ngi ci ñoo ngi ci waxtaan ñoo ngi xool nan la ñu war a def xam nga affaire bi du manifestation kese affaire bi am na yeneen jéego yu gën a am importance yi nga xamante yu gën a am importance yi nga xamante ne day accompagner manifestation bi maanaam bu mu yem rek ci ñaxtu ñoom bëgguñu mu yem rek ci ñaxtu. comprendre nga li ma la wax dafa am leneen li nga xamante ne moom la ñu bëgg a jël accompagner ko. jërëjëf Tigresse a ASID TV la chaîne des patriotes.